mais ñu ñëw ci làmb tay bi ñu gis lenn sarko ku ne xam na ni génération ñoom Sa Thiès la ba mu ba mu jógee ci euh, combat yooyu xawoon na am ay jafe-jafe tuuti waaye mu mel ni fi mu demee ba yeewu ci làmb li gën a li gën a doy mooy ay xale la rangale mu ngi ci troit wala quatre di leen rangale ñu ne ndax fa la yem mu ni damay jëlaat benn ñu ne ko ah koy muy damay dem ba géejewaay jël ja xale bi ñuy wax boo ña ñaani bu ndaw. xale boobu nga xam ni lu ko lu entraînement di maye war na ko mën am ci làmb. Mm. ñu ni est-ce que du risque mu ni du risque ci man. Mm. fi ma doon jaar fi ma jaar jéen kay de fi ma jaar aada faas. Mm. foofu laa koy foofu laay jaar. waaye nag tey. mu mel ni expérience. face à la jeunesse. naka ngeen gisee. làmbi tey. ak benn mbër moo ci yóbbuwoon ci ñoom. yow Samba. Hmm. jox naa la ci sarko hmm. hélas dina ñëw ci Boy ñaa ak Zal. waaw léegi ci Niang bu ndaw. ak sarko day day day day day làmb joo xamante ne. làmb ju doy waar la xam tax mu doy waar. ndax Zarko day mbër bu am fit mbër bu am jom mbër bu lambe dafa lambe bu ndaw nag dégg naa ko mu communiquer mais su ma ko yoroon tey na mu waxee du ko defee ko kenn du ko jaay maa la ëpp fit loo teg ma teg ko loo baax ma ñeer ko. dégg dañuy dal.